Euh, ci ni ngeen ma euh, euh, invité ma ñëw ci émission bi pour wax Sénégal yi wax leen ni xew ci mu ñax ñax dafa fekk ni dañu ministère de la santé daf ñu sant ñu ñu ñu ñu saytu mbirum vaccin xool li ci nekk yëpp ci biir jox ko un avis ma nekk ci kuréel boo xamante ni fukki membre lañu ak juróom mooy comité consultatif du vaccin au Sénégal pour que ñu mën a joxe un avis éclairé à la population sénégalaise à l'état du Sénégal pour que ñu mën a am choix kuréel bi nag du tey lañ ko lañ lañ ko sumb kuréel bi yàgg na depuis 2013 lañ ko créé dama ko fàtte wax sànq ci ci nasaraan mais kuréel bi dafay liggéey ci yeneen anam ci yeneen vaccin yu bari mais bi dafa fekk ni vaccin Covid dafa xaw spécial. vaccin bi ci benn at lañ ko defaree donc dafa bari coow mais il faut que ñu expliquer ñëpp vaccin yi mu nekkee dafa fekk vaccin yoo xamante ni cinq plateformes la ñu liggéey ñun euh, cinq vaccin la liggéey pour trois plateformes mooy vaccin yu bees yi dafa am vaccin yoo xamante ni moom daf ñu dañoo bees waaye dañoo bees ci nit ci ci sax même ci ci phase 3 la ñu beese sax waxuma ko sànq ci nasaraan mais phase 3 la ñu beese mooy phase efficacité bi mais phase 1 ak phase 2 defoon nañu ko ci yeneen yeneen ci yeneen jàngoro yeneen yeneen doomu jàngoro yu amoon yoo xamante def nañu ko ci kon nag beesul bees waaye noonu noonu trop noonu vraiment vaccin yoo xamante ni yu yu li ma ci mën wax daal mooy victoire humanité la victoire monde scientifique la parce que defar vaccin ci un an. loolu c' est une presse extraordinaire bi ñu ko andil mooy lan mooy ñëpp dañu lëkkaloo yoon la dëgg la parce que nag wax dëgg yàlla mais suñu survie la survie de l'humanité est mise en jeu loolu moo tax ñëpp jógandoo mais lu ñëpp jógandoo mais évidemment il faut que ñu trouver solution et les solutions sont là aujourd'hui il faut que ñun ñu xam ni ba ñuy ba depuis 1890 je crois 95 yàgg na ay siècle gi nii ba léegi vaccination dafa nekk loo xam ne jumtuwaay boo xamante ni dafa mës a aar doomu aadama kon nag du lu bees lan moo bees Covid moom moo bees loolu ngeen war a xam Covid moo bees waaye ñàkk moom mënuñ ci dara fekk jàmm jàngoro bu amee ñàkk moo ci tëb loolu moom mooy yoon bu normal. gaawaay bi expliqué naa sànq nasaraan dafa fekk dañoo boolee lépp ñëpp àndandoo xaalis bi doy na ñëpp jógandoo ñëpp liggéeyandoo. loolu moo tax ni ñu am ñu am ci ndam mu am ñu am léegi nag ndam bi foog mu foog ñu yeggale ko te pour ñu mën a yeggale ndam boobu yéen ñi yéen a tax ñu mën ko yeggale yéen a war a am réticence boobu yéen a war a comprendre ni pour ñu mën a arrêter léegi Covid bi progression il faut que ñun ak progression ak ak ni dayoo bi nga am ci nit ñi ci gaañu faatu ñun jaaxal ñu ñëpp la jaaxal te vaccination bi dana ko wàññi. lu am gis nañ ko euh, te balaa yàgg sax daañu dana gën a leeral encore ci bopp nañu ñun nag vraiment li ñu nekk moom mooy dalal seen xel wax leen ni ñàkku du loo xamante ni dafa ñëw pour gaañ leen déedéet. Ah, mais ñun du ñu nekk ci li ci liggéey depuis ay at yi at ngi nii mais ñëw di waxante suñu askan di leen jox loo xamante ni daf leen di loolu mënul loolu loolu mënul nekk moo tax question bu ngeen laaj dañ ciy sawar a répondre nit ñaa naan sax ay est-ce que amul ay puces ci nekk loolu daf may def rëy. am na vaccin yoo xam ne sax ay ay graisse lañ jël graisse lañ jël entouré ko ci kaw nii graisse lan lan la mën def ci nit xanaa kañ da nga koy digérer rapidement rek <laughs> loolu la loolu moo am ci vaccin yu bare kon nag parce que temps bi xat na mais li ñu bëggoon daal message bi ñu bëggoon jàll daal mooy mooy lii fu mu nekk nii ay millions yu millions wu nit la ñuy ñàq ci bés par jour ëpp na cinq million nit yoo xamante ne dañ leen ñàq ci bés bi loolu mosu ko dégg fenn cinq millions neuf cent quatre-vingt-douze millions de euh, cinq euh, deux cent quatre mille personnes la ñu ñàkk ci bisu tey bi cinq millions te ñun fu ñu nekk ñun xanaa ñun bokkuñ ci àdduna bi ci àdduna bi lañ bokk nag il faut que yéen ñii ngeen wan ñu ci àdduna bi lañu bokk président de la république def na effort effort bi mu def moom mooy malgré la l'initiative COVAX bi nga xamante ni dañu bari ñoo lëkkaloo moom nangu na jël ci poche moom jàppale réew mi pour ñu am ay vaccin mais vaccin bu ñu ko amee it il faut que yéen ngeen nangu ko jël aussi xam naa ni am naa gis naa ñu bari ñoo xam ne d'accord nañu ko jël mais nag li bëgg rek mooy vraiment su amee ay questions yoo xamante ni mënu leen ko comme ngeen ko bëgg nam ma posé ñun fii taxaw nañu fii tey jii pour répondre ci question amul question bu ñu dul répondre nag lu ngeen laaj rek danañ ci wax li ci jëm te loolu mooy suñu suñu rôle vraiment di sant ñëpp di vraiment di gërëm aussi euh, rajo yi di wax leen am na ay variants yu ñëw ndax ñu gën a gaaw rek. ñàq moo gën ñu aar balaa yooyu yëpp di ñëw li nga xamante ni solo ma leen di gërëm di leen sant.